Dans leen ak jàmm fii ci ak ci service lépp lu ngeen soxla jëm ci flocage t-shirt maillot casquette graphique bu mucc ayib seet si ñoo ci impression numérique sur tout support n'hésitez pas à nous contacter sur 78 162 24 60 ou le 76 142 24 60 wala nga seet ñu fii ci Parcelles une de 5 ci marché Mame ak Service production d'une bonne qualité d'impression sur tout support. Tidjane Khalifaay lampum ngor mboolem ngay wëndeelu lool la yàlla def. bay min tiil max naa woo mooy docteur bi faalay hmm. yéen tiijaan tiijaan yi wagu lañu luy seen wërsëg nañu ko xaar ci raay bi tiijaan xalifaay lampum ngor mboolem Sénégal leer yaa ngay wëndeelu lool la yàlla def bay min tii max naa woo mooy docteur bi waalay mbokk yi am nañu mbégte ak contentement teewaat seen beneen euh, numéro journal du gàmmu ndakaaru du journal yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ngir ngeen dund gàmmu ndakaaru gi ginnaaw jours yi moins tey ñu ngi ci jour J moins six aleykum internet yi yéen miin ngeen samay jotaay miin ngeen sama kanam ma euh, nuyu leen tatagal leen jox leen euh, seen wàccuwaay di nuyu xal général de des Tidianes Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour di nuyu suñu baay Serigne Abdoul Aziz Sy Ahmed tey ñu ngi ci jour J moins six kon gàmm gi mi ngi dem di des ci ñu yegg ci gàmm gi matatul dara mën naa ñu ay fan kase la yéen ñi nga xamanteni ni abonné ci Tivaouane 7TV daw leen gaaw ngeen abonné partager commenter ngir mëna bokku ci yéen ñu ni tànn may leen xéewal yi nga xamanteni ni ak Tidjani service mi ngi koy amal di leen ko may yéen fidèle internet yu Tivaouane 7TV li koy indi leen gassa la commenter partager aimer ni ma nga waxee ñu leen ginnaaw ba ñu tambalé journal du Gamou bi te 10 jours yi mooy 10 ba jour ji moins six ba ñi àggee ci le premier février incha gros loolu mag bi laa tuddee fofu foofu nag mooy dañ dañ dañ dëpp gi su ko defee da ngeen di ñëw ñu xol yeen ñi nga xamanteni yeena gëna partager yeena gëna partagé yéen a gën aimé yéen a gën vidéo yi en temps normal su ko defee ñu tànn leen woo leen may leen maillot Sénégal floqué à votre nom wala tapé de prière personnalisées. Ben Euh, sijaadu jullikaay ñu bind sa tur mooy tapis de prière personnalisé personnalisé wala ay tableau photo yi nga xamante ni bëgg ngeen ko yéen seen bopp wala seen sëriñ wala photo sa yaay wala pourquoi pas photo sa papa ak Tidjani service moo ñuy gunge gis ngeen yi nga xamante ni plateau yi ñu mucc ay yi nga xamante ni ak Tidjani service décoré na ko ngir jagleel ko journal bi gàmmu Ndakaaru ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci beneen numéro journal bi gàmmu Ndakaaru image du jour jeudi moins 6 Nous dem xool kan nous ak sur ce plateau. ah image du jour tey dit le prince de Tivaouane Pape Malik, Mbaye Malik, Serigne Ba Pape Malik, Sy <laughs> Pape Malick bàyyi ma waay Pape Malik, Sy Malik, Serigne Malik. Sy le prince de Tivaouane l'élégance

en temps normal di leen fàttali bési ndax ni ngeen di gisee image yi muy dem noonu la jours yi di demee ndax tey six jour tey ñu ngi ci moins de six jours kon mooy wane ni gàmm gi li si des daanaka yàggatu ndax vendredi le 2 février léegi mu ñëw incha allah le premier février dana fekk ñu tànn yéen ñi nga xamante ni yéen ay bokk ci ñi ni may mayo wala tableau wala tapis de prière lenn kase la dama ngi insister waat ndax dama bëgg ngeen am ci yooyu tapote abonnez-vous maximum partagez maximum commenter commentez le maximum possible Si vous avez des le la tànn jël le commentaire jël ce numéro ci souffre, jox le wala nga 78 314 28 64 Nous sommes la may mayo Sénégal Il faut que nous xam ngeen ni euh, Sénégal mi ngi ce li nga savez, c'est moom 8 de finale am suba à ci lundi gi nous Côte d'Ivoire ñu ñaan yàlla yàlla may ko ci ndam. Le sedd Sénégal di gën a qualifié ñuy dem final bi allah pourquoi pas Sénégal coupe d'Afrique bi ñu leen di Sénégal tableau photo Serigne Ahmed tableau photo Serigne Moustapha Al tableau Cheikh Tidiane Al tableau Serigne Abdou Aziz Al tableau bëgg le maximum possible photo ñu may service de de prière personnalisée garde jullikaay yi bu ñu bind sa tur ngi noonu te ñuy dem seetaani élément yi nga xamante ni ñu leen koy amal boobaak léegi muy vie et œuvre de Serigne Sidi Ahmed Sy tey nag ñu toll ci relation moom ak xalif général des Tidjane ñu ngi keroog ba Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine génne àdduna ci ñetteelu fan bi ba naan kër Babacar man Mansour xal général des Tidjane jaayante bi nga xamante ni Serigne Sidi Ahmed Sy jaayante na ko ñu wax leen seen relation ñoom ñaar. en 1952 ca ba ñuy bokk école militaire ñu dellu soit sur ce plateau. mbokk yi nuyuwaat leen ci seen beneen numéro xibaaru jëm ci gàmmu Ndakaar dal leen ak jàmm démb ñëwaloon nañ nag yéen ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ak Serigne Sidi Ahmed Sy tey nag moom dañuy ñëw yeen yéen ci Serigne Babacar Sy Mansour relation yi nga xamante ni am na ko ak sii Sidi Ahmed Sy ñoom ñaar ñi ngi amoon benn relation bu fondé wu depuis. ñi nekk école militaire vers les années 1952 cette relation Serigne Sidi Ahmed si ak euh, Serigne Babacar si Mansour wane na ko keroog ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin génne àddina te Tiwaawan yëpp ñëw ni Serigne Babacar si Mansour yaay nouveau Khalif général de Tidiane. loolee tax Serigne Sidi Ahmed si raison de santé maanaam yaram bu jagadi toog Dakar waye wo Tawam, tawam Serigne Mansour Sidjamil devant tous les écrans devant tout le monde ci ka wayu ñëpp ñu def ko haut papa Serigne Sidi Ahmed si moy woote di le kóllëreem ak jaayanteem ak yow Serigne Babacar Sy di le féliciter ci nouvelle mission mam bi nga xamante yenn nga ko muy général di Tidiane di serigne Sidi Ahmed si ku nangu won cieur la ku nangu woon kilifteef la loolee wane ni serigne Sidi Ahmed si mbëggeelam cofeelam ak wa keur sidi Hadji malik ba ku tok mu xolé la ba tu cheikh sidi Hadji malik mbok yi li lañ leen indilon bu suba ñu ñëw ak yéen ci yeneen relation yi nga xamanteni serigne Sidi Ahmed si amnako ak ay frèram yu ci mel ni Papa malik si babakar waaye ku ci mel ni Serigne Maodo si Dabaax jërë ngeen jëf ba suba incha allah. mbokk yi mi ngi lii day wane ni euh, Serigne Sidi si ni ma ko waxee ci émission yi jàll yëpp moom képp ku toog ci jàll bi Serigne Sidi Sidi Hadji Malick la lay xoolee képp ku toog ci jàll bi Serigne Babacar si la lay xoolee gis nga élément bi ñu ngi ñuy wax ñu ñoom ñaar ñi nga xamante en 1900 seen relation mi ngi gën a taxaw. fondé wu ci ba mu nekkee école militaire cinquante 1952 seen relation di dem di dem ba keroog ba Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine génnee àddina jaayante gi nga xamante ni sax def na ko publiquement ñëpp dégg ko muy jaayante ak Serigne Babacar Sy Mansour di ko wax nangu naa li yàlla def nangu naa ndogal gi muy yow yaay sunu xalif général des Tidianes loolu de wane ni cofeel gi waa kër Cheikh Serigne Babacar Sy am. ci cofeel gi waa kër Serigne Sidi euh, Sidi Sidi Ahmed si am lii da koy firndeel lii kese la mën naa sax ni fa laay prox ci vidéo bi ndax tubaab preuve la bëgg dugg ci vidéo bi nga xamante ni keroog Serigne Mansour si Jamil Tiwaawan mi ngi wax naan jur kenn di ko jotali mu naan sama papa Serigne Sidi Ahmed si Dakar Rue Thiers mooy woote di jaayante ak sëriñ Serigne Babacar Sy Mansour ñu seetaan élément boobu. dellusiwaat sur ce plateau. ngeen baal ma rek. sam Pape Sidi Ahmed. Dakar. moo woote léegi. yóbbante Nuyo. nuyoo. ak ziyaara. ak jaayante. ci suñu kilifa gi di bay Serigne Baye. nee soo ko gisul tey. Tank ya ko téye. moo tax mënul ñëw. waaye njabootam yépp ñëw nañ. nee na lii fi jib. mu ngi xamal nit ñi ni ànd na ci biir ci biti mu ngi fedd li jaayanteem ak ziyaaraam ak nuyoom ci njaboot gi yëpp baarakallah wallahi mi ngi nii preuve à l'appui lii la tubaab tuddee preuve à l'appui tubaab preuve la xam lii lu koy firndeel loolu ci la bokk mi ngi nii keroog Serigne Mansour Sy Djamil Serigne Abdou seen ko mu toog noonu Serigne Abdoul Aziz Sy Ahmed bii boobu nag bii jamono yi kenn miinu ko kenn xamu ko mu effacé wu nëbbatu jël tànk yi nga xamante ni waajuram ba moom la jël muy Serigne Sidi Ahmed si waaye nag pataar pat pat patiral gii bu ànd ak pouvoir la bu ànd ak pouvoir spirituel la dimension niveau intellectuel am foo ko natt weesu na ko Serigne Mansour Sy Djamil naan Serigne Sidi Ahmed si mu yónnee di di féddale di di di di di nga xamanteni mom moy jaayante ak serigne babacar si mansour di ko wax ni yalla na yen bi woyof toll ci li nga xamanteni mom moy mission bu bes bi nga xamanteni ni nga ko keur cheikh sëri haji malik moy la khalif general de tidiane mi ni li li dafa bok ci li nga xamanteni ay tu am certif mi ngi len koy indi di len ko fatali mu jëm ci jurnal journal gamu gamu dakar pour ngeen gëna baye kan xel kan moy serigne sidi ahmed ginnaaw sax kenn xamu ko ba ni mu génnee àdduna may na leen élément bi nga xamante ni si septième nuit Bourde la ñëw te ba mu ñëwee ci lañu ko bëri découvrir ñi ki ah kii mooy Serigne Babacar doomu Serigne Babacar Sy bi nekk Rutière waaye loolu n'empêche pas que dimension spirituelle am niveau intellectuel am ni mu toogee ni mu matam ni mu toll ci yàlla teewul mu toog nduroog waajuram ba préféré nëbbatu làqatu ba keroog ni muy wuyjee boromam ñu denc ko fii ci armée Yoff xam naa ñiy gën a dem ngeen di gën a am élément keroog la 3 avril 2019 ban ko tàggee ñu sëriñ Sidi Ahmed si wuy gën a boromam bu nu ñëwee ci élément yooyu dana bis mais nag lu mënta ñàkk faa mu am émission li leen di may moom mooy ci relation moom sëriñ Babacar Sy li nga xamante ni keroog su ma juumul gàmmu abraar la wala ziar général wala gàmmu cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan xamtuma ci ban la nag aw Babacar Sy Mansour sëriñ Sidi Ahmed si ñu ngi toog ñu seetaan loolu dellu siwaat incha allah

sur Tivaouane TV ak support de communication yi de leen di di suivre de bu leen fàtte cloche de notification bi ça vous permet vidéo bu dugg rek ngeen ko jot en intégralité wala en direct mën ko mënee nekk ci yenn cérémonie religieuse yi ko am en direct sur votre téléphone lu ñëw ngeen mën njëkk ko am bokk commentaire bokk ci ñi partage bokk ci ñi njëkk envoyer des cœurs beaucoup de cœurs su ko defee loolee dana leen permettre ak service tu as tv mën leen tànn may leen li nga xamante ni moom mooy maillot Sénégal personnalisé floqué floqué à vos noms wala tapis de prière personnalisé wala ay tableau lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko daw leen seet service carte de visite carte de mariage sachet t-shirt ah sérigraphe impression sur tout support une bonne qualité d'impression sur tout support Al service moo ci mën numéro de téléphone yaa ngi noonu ngeen di xool ci écran bi ngeen daw seeti ko marché Mame mbay Niang Tapha Touré di doom ci Serigne Abdou Aziz Sy moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziar ci euh, kóolute gi mu am di gunge Tivaouane 7TV ci li nga xamante ni moom mooy journal du Gamou Dakar ma jox leen di daje. suba inshallah allah bu ci yàlla ci benen numéro journal du gam dakar way leen di abonné way leen di activer cloche de notification bi di commentaire di aimer ngir lu dugg ngeen mën ko jot alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf ba suba incha ci benen numéro journal du gam dakar dal leen ak jàmm fii ci ak Tidiane service lépp lu ngeen soxla jëm ci flocage t-shirt maillot casquette sérigraphie bu mucc ayib seet ñoo ci mën impression numérique sur tout support n'hésitez pas à nous contacter sur 78 162 24 60 ou le 76 142 24 60 wala nga seet ñu fii ci à une unité 5 ci marché Mame Mbaye ak tidiane service production d'une bonne qualité d'impression sur tous bay min ti max naa woo mooy docteur bi waalay hmm. yéen tiijaan yi wagu lañu luy seen wërsëg nañu ko xaar ci raay bi tiijaan xalifaay lampum ngor mboolem Sénégal leer yaa ngay wëndeelu lool la yàlla def bay minti max naa woo mooy docteur bi waalay